الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله سن بوك إمام عبد العزيز نجاي bu jàkk Sacré-Cœur 3 VDN moo delsi tey jeudi 20 أوت 2020 دي وقتان ak yéen mu nekk sunu audio numéro 149 ci sunu jotaay bi passé andon nañ gis mbokk yi euh, li borom bi allah subhanahu wa taala wax ci aya 71 bu suuratu nisa borom bi di fa doon tuddu mbirum xare ci jàngat bi ñu ngi ci doon fàttali li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal saaba yi ci wàllu nite su nekkee ne ñu ngi ci yoonu yoonu xare ñu war a jàll nag tey ci yaa ayyuhal lazina amanu bi ci topp yaa ayyuhal lazina bi ci topp mooy aaya 94 ci sóoratu ci sóoratu nisaa ba léegi ci aaya boobule borom bi allah subhanahu wa taala mu ngi wax jullit yi yaa ayuha allazina amanu izaa darabtum fi sabilillahi fatabayanu ولا تقولوا لمن ألقى إليكم سلاما لست مؤمنا إلى آخره بآية بجاخ borom bi allah subhanahu ba léegi ci mbirum xare la nekk borom bi ba léegi ci mbirum xare la nekk mën na jullit yi na ngeen xool bu baax li ngeen di def su nekkee ne yéen a ci yoonu xare def leen attention bu baax ci li ngeen di def su nekk yéen a ngi ci yoonu xare mu ne leen bëgg bi ngeen di bëgg seen màng duun màng mbokk yi moom la tubaab di wax butin màng mooy alal ji nga xam ne sooy xeex ak say noon moom ngeen nangu ci ci ci ci ci moom alal ji ngeen nangu ci sa noon bi ngay xeexal alal joojule moo tudd moo tudd màng moy butin borom bi ala subhanahu talé taala ne kon julit yi mang boobule ngeen bugu mu dun bu mu tax ba ngeen di dem di yakamti ba di sif ala lo ñi nga xam ñom ñoom ngeen di xéxal na ngeen def ndank bëgg seen màngu duun bu mu leen yóbbee ngeen di yàkkamti ba di nangu alal ñi alalu ñi nga xam ne ñoom jàmm kese lañ bugg mu dox seen diggante ak yéen ba sax di leen di nuyu nuyu lislaam di leen di wax asalaamu bëgg seen màng duun bu mu leen yóbbee ngeen di rey ñu leen di wax asalaamu borom bi ne jullit yi na ngeen xam ne màng bi nekk ci man màng ji nekk ci man su ngeen ma fekk see xam leen ne màng boobu moo ëpp doole fuuf Mang àddina boobule allah subhanahu wa taala ne julit yi lima len li am ci payor ci man du morom li ngeen am ci mang, ci xare yi kon nak def len attention ci li ngeen di ci li ngeen di li ngeen di jëflante ak ñi ngeen di xeexal xool len bu baax li ngeen di def ndaxte man allah subhanahu xam naa lépp ci tënk mbokk yi loolu la borom bi allah subhanahu wa taala wax jullit yi mbokk yi aaya bii bi muy wàcc fekk na ne jullit yi amoon nañ ah, benn comportement boo xam ne aada la woon ci arab yi moo doon di siif alalu seen noon yi wala sax fekk yor alalam rekk nga xemem alal ji rek nangu ko ci moom siif ko loolu la tubaab di wax razzia razzia loolu dafa nekkoon benn jëfin boo xam ne dafa saxoon ci ci aada aada arab yi loolu nag la allah subhanahu wa bi mu wàccee aaya bi la jullit yi nañ ko baax mbokk yi ñaari xisaa ngi nii ñaari xisa maanaam ñaari rési yoo xam ne ibn abbas moo ko nettali ibn abbas nettali na ko ibn kathir daldi leen indi ci tafsiram mu ñaari xisa yoo xam ne day wone lu tax borom bi allah subhanahu wa taala wàcce aaya bii di aaya 94 suuratu nisa xisa bu njëkk bi ibnu abbas mu ne dafa am benn nit boo xam ne mu ngi soqeekoo ci bani bani sulayim ci waa banu sulayim la bokk moom sàmm la woon moo amoon ay gàtt leen di sàmm leen di yóbbu pour ñu pour ñu lekk ci yoon bi mu dajeek ay jullit yoo xam ne ñoom ñu ngi nekkoon ci yoonu xare biñ dajeek moom nit kooku lee nga xam ne sàmm la bokk ci waa banu sulayim nit nit ki ne leen asalaamualeykum di leen nuyu leen Ibn Abbas nee na jullit yi feyuñ ko feyuñ ko waaye rey nañ ko daldi di jël gàtt yi ndaxte pour ñoom waa ji asalaamualeykum boobu mu leen wax gëmu ko daf ko wax rekk pour sauver ay gàttam moo ko ci xiiroon mu nekk lu rafetul mu nekk lu ñaaw ابن abbas beneen قصه bi mu nettali mu ne benn saaba bu ñuy wax al mixdaad بس mixdaad benn aswaad bés yonent bi salallaahu alayhi wa sallam pour mu pour mu jiite benn xare ci xare ba mixdaad am na kenn ku am alal kum rey ku ku am alal mu rey ko ci ca xare ba fañ demone et pourtant waaja ba mu leen gisee dafa wax ñaari baatu seede yi ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu almixdaat benn aswaat ne waaj ji li mu wax gëmu ko alalam ji la bëgg a sauver rek waa ji dafa bëri woon alal mixdaat rey waa ba saaba yi ñibbee Medina ba yonent bi sallallahu alayhi wa yëg mbir mi mu oolu mixdaat bi mixdaat ñëwee mu ne ko al mixdaat naka ngay mu ne reyee koo xam ne tudd na baat ñaari baatu seede yi naka nga mu ne rey koo xam ne tudd na ñaari baat seede yi al mixdaat yow lii naka nga koy layee ci sa kanamu borom bés bu lay àtte almixdaat lay wax sa borom yowmal xiyaam su lay àtte lan nga koy wax ne moo tax nga rey kii ki tudd ñaari baatu seede yi loolu la yonent bi salallaahu alayhi wa sallam wax almis mixdaat moo tax mbokk yi euh, xel dem na ci ñiy ooye seen bopp jihadiste di fekk ay jullit ci seen biir jàkka di leen di rey ñooñu seen jëf yooyu dara du ci lislaam amul benn sikki sakka fekk ay jullit ci seen jàkka ñuy julli nga rey leen parce que yow jihadiste nga nga ne loolu say jëf jooju dara du ci lislaam loolu mu ngi mbokk mbokk yi mu ngi xew ci jamono mbokk yi kon ñu gis ne màng màng warul nekk loo xam ne dafay yitteel jullit suy dem di xare loolu la borom bi allah subhanahu wa wax du màng bi mu war a yitteel jullit yi déedéet waaye défendre kàddu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah loolu moo défendre kàddu boobu yaatal ko dëgëral ko loolu mooy motivation wu jullit buy dem xare waaye demul pour uti màng demul pour màngi ji déedéet màng bi warul ko yitteel ndaxte borom bi nee na lay alal ca wetam lay alal ci wetu borom bi allah lay payoor ci wetu borom bi allah loolu moo war a yitteel jullit bi mbokk yi xare amatul dëgg la waaye di oote ci yoonu yàlla am na ba léegi di fàttali ci diine am na ba léegi moo tax ñi yàlla nattoo ñu koy def ñoom lenn ci alal warul nekk seen motivation oote ci yoon yàlla ngir yàlla dong kuy oote ci yoon yàlla di fàttali di yàlla wax li yonente bi salaa salaam wax bu ci xaar lenn ci wàllu weccit mbokk yi xaalis su duggee ci diine rek dégâts yi bare yàq-yàq yi dafay bare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne utum alal ak utum daraja li muy yàq ci diine bukki bu xiif du ko yàq ci géttu xar utum alal ak utum daraja limi yak ci dine mo upp fuuf li buki buki bu xif di yak ci gettu xar mbokk yi alalu adina nañ ko teg rek plasam nañ ko teg rek nga xamne day tax sunu dundu jappandi jeex na donc waaye bu ñu ko teg foo xam ne day dem ba di yàq sunu sunu diine dem bay tilimal sunu diine te loolu mbokk yi bëri na ci jamono lool sax yal nañu yàlla sore loolu yal nañu ci yàlla ñu ci yàlla muccal amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم